ndeysaan arbi bi mu ngi noonu ba tey ñoom ñaar ñu ngi xeex Petit Niang takk na ko Ziza takk na Ziza takk na Petit Niang meer taxabal ba daal lu mu nar Ziza takk na ko Ziza nga doon taxabal waaw waaw mbot nañ ko. Petit Niang bañ na daan ko Ziza daan na Petit Niang. Ziza daan na Petit Niang. Ziza daan na ko. laa ilaaha illallah. Ziza daan na Petit Niang jël bu waaw waaw. ñaa dellu sil ma ci façon bëre bi nga bëre petit ñaa waaw xam nga petit ñaa maa moom waruñu woon bëre du ma moroomam saay man 19 combat laa def peut nekk si tolof tolof a pare moon moo tax mais maa moom lam boolewuñ dama mel ni bi arbitre sifflé dama gis ni daf la xeeb ñàkk a xeeb boobu moo ko jural lii xam nga na Moussa waxoon naa ko nee naa buñ bëree pare ngay comprendre buñ bëree pare lay comprendre sànq dama gis nga koy tàllal loxo mu bañ a jël sa loxo la réew xam nga man ku ma saaga ndey ma jeex jàmm saaga na ma duma ko gay ko saaga na ma ma duma ku ma saaga na man sama yaay rek la am waaw. daan nga Petit Niang fan nga jëm. di si kaw nañ ma xaar. yàlla la ko wax nag da nga may si. Ah. donc invité naa la suba ñëwal ñu wax. jëf